ka la waay. yow sa rouge bës na. waa doom day lu bees ci loo nekk toog ah ni ngay sellalee weer bi tamit ah ëpp ah, na de. dégg nga lu leen ñàpp say téléphone def sa set bu xoolal démb nekk moom bëgg rek yàqamti egg si si yow. yaa ngi def sa sa taay bu yooyu la. xam nga bu nekkee ci kër gi damay mël fu de doo ma def yu gàtt yooyu noonu li kii tey ah, mais rek bàyyi ma dégg eh, dañu voyagé. am ah. papa dañoo dem mag dañoo dem pour un mois. fu mu ne nii. Uh-huh. kër gi maa fi ne yor sama kër di entrée ko sorti Modou bebe wa bee ci lo ne Nam naa la tey bu gisuma la Wa mangi ngi non non ma ngi fi yo tamit dina len fente duma la tar yo tamit ah bon sa ben ah mbaa yor na mbaa amna bi. ah na tabe de dama bëgg kuy joxale. ah leer na mangi maa ngi fi maa ngi ga sama xarit bo ma la doon wax Amina te Paris Moma setti ni bu ñëwee ma buux ko ko rek ñu defante lu baax. waa baax na Modou Mbaye la sama bébé. jur kañ ngay changé. changé <laughs> yow may ma. benn xaritam bu baax. xam nga ne fu mu ne nii moom kër gi kenn newu fi. maa fi ne di gérer sama koor sama kooru bopp du ma wóor. xam nga li ñu daan def rek dara changé wu. jor ci weeru koor la njëkk rek. ñu ko jéem a eh, ah ah, ah déedéet lu ma yàqal. ah déedéet mais xam nga weer bee ko laaj. Ah, xam nga dafa xaw a kii. bul yàq. xam nga ne kër gi kenn newu bañu rek ñu def suñu yëf nañ ko daan defee rek. la war a ah. woon. maaleykum salaam. waaw mais naka nga def. ci lan nga ne. bàyyi ak am jàmm toogal. yaa ngi si jàmm. léegi laay wax ak Modou. mu ne ma yaa ngi ñëw. yaa ngi am jam, bu baax. ñu Amina Amina Niankase. Paris la jógee ba kii démb. maa iya, ngi leen di bàyyi ngeen waxtaan maa ngi leen toog ci ginnaaw. ma jot sama téléphone. mais yow Moodu naxuma de Moodu li ma waxoon yëpp li ma waxoon ci gis naa ko. mais li nga wuuj nii def soo wuuj nii vif nii. tubaab bi ko créé sa da koo sa waaw na. se voit que na moo dara t'as la nostalgie de rien du tout.

daf sa lu la neex la tam sa bu la neex man mom bëgguma ko woyef beut non bëgg ma budget ndogu bi ñaata la ma xol hmm? budget ndogu bi day ñaata la 50 50 50 dafa ndaw lool du ndogu ñu am xol yermane 50 bax na ci ko mënul ba wadal ya wax ko ko la encore salam alaykum alaykum salam ala sama jigen ju bax ji jor as gor mom ziyaare naa la ziyaare laa si wéeru koor bu tedd bi. ah. Eh, mojji. waaye kii kàlla. du ñàkkase. ah moom la de. surtout Ndiak Maktar bu mu faati Ndiome laa leen saa ñëw ma dee ci mbir lool. ah. jur sin naa sa maam la. jur nay se Ndiak sa maam la. jur ji bi sa maam la. surtout Gaysiri Bokar Njong. Amadou Bokar Njong. Fatimata Bokar Njong. ma sàmm ku ma jaw gaynde bi borom maa leen gën way ñaa as gor nga français neen prenne-moi ton gentil jusqu'à demain je te rembourse mbaa kenn du ko aale gaynde bu juree mus kenn du ko woowee gaynde wéeru koor bii sa yow ñag baalu maam moo di ak mag Matar Ba di Njaay sa bu mu duggee si réew mi maamu joor duggul si réew mi dangay yëkki di biir yoo xamante nii day ngemb liir 24 heures du doy mini karamar bien bienvenue c'est pas venu c'est le venu sûrement jor ma lay nuy maa ngi dem ba beneen yoon dem naa wa man jommiw ma waa ñaar ah ya gis de man moom waa ji nii laa fi nga génn dara noy ci mais ni ke le mom maag mom ni la rek fuñ dajé mom ndox may tàgg té man ñun tugalal bo ñu tàggee dañuy joxé li ñor dara bax ci dé ah au fait man dama war a génn sax am benn oto bu ma war a génne ji nii léegi dama lay bayyi nga gérer ndogu bi amul problème bàyyi nga gérer ndogu bi ci kanam d'accord c'est kanam ok bi da dul faf rek. Amina man jooju bu ko amee fii si loolu ne. kii daal Amina naa la lu bees. yaa ngi am jàmm gaynde gi daje nañ ñaa kese. kii moom du waajal de. kan du mi. waaw ñaa lu suukar laax. ñaar la fi bàyyi. bàyyi. zéro dafa am fu mu jaar da joxe ko fa soog a. waaye bul ma tooñ waaye nga ma dafa am fu mu jaar da joxe ko fa. man nag ma xamee ngaaka yow ma sam partenaire yëpp kenn du ci ngaaka ay gaynde rek laay àndal. mais billaay wuy ma tàlleekul noonu rek may ma moo ko teg ko ko. dëgg yàlla bàyyi fi kon fis noonu la deme

sa kanam laa roof la mën nga ko fee roof jël ko duñu ko yee gis nga bàyyi sa façon yàgg ngoo temps xale da nga yàgg bëggee cin banul fakkul dafa nekk ni mes Amina maa ngi yow fi toog comme fii fi toog ak moom hmm? waa Amina Moodu la Moodoo sàcc sàcc gi waaye Moodu naka ngay wooree ba ngoon bëgg am dara ngay sàcc bu ma ne xujju ci rek nga yor Modou sàcc bu mag la wor ba ngoon sàcc xaalis bi teg ci waaye ñun bàkkaar bu ñu waroon a am mu jëlaale ko. waaw ñun lu ñuy ndogoo. xanaa ñu naan ndox.